le train de vie de l'État euh, pour am ressource mën a gouverner bañ a wuti ay institutions yu mel ne FMI wala Banque mondiale ak priorité yi di xaar ak urgence yi est-ce que mbir yi dina dina dina yomb dina bar Mohamed euh, merci beaucoup d'abord damay rafetlu les différentes interventions comme ni ma ko waxee rek gars yi moom vraiment seen seen xam-xam màcc na euh, bu ñu waxee rek dina métti nga am loo fa yokk donc maa ngi rafetlu vraiment ces interventions là alors euh, comme l'a dit le grand Ablaye euh, Ablaye euh, Seck j'oublie euh, nekkul affaire puusal ma toog parce que il faut qu'on reconnaisse que le PSE euh, malgré ses manquements am na aussi des points positifs je dis toujours il faut pas qu'on soit nihiliste il faut pas que ñu ñëw ñu ne régime bi fa jógee amul dara lu baax lu mu fi def non donc dama jàpp ni le projet est venu pour voir les manquements xool comment les améliorer les perfectionner pour que euh, mën améliorer la situation économique du pays donc ñun su logique boobu je pense que si la ñuy inscrire léegi les problèmes sont là il y a énormément de problèmes et je pense que le gouvernement en place en est conscient parce que boo xoolee toutes les décisions et les mesures qui ont été prises récemment ça

c'est des produits qui sont importés et des produits qu'on aurait ah, pu euh, ñun produire nous-mêmes donc cela veut dire que il manquait réellement une réelle volonté pour que ñu créer une économie endogène et je pense que c'est là où le, le, le projet Diomaye a mis l'accent a mis l'accent aujourd'hui quand on voit par exemple le Premier ministre les décisions qu'il a prises la dernière fois par rapport à la campagne agricole euh, je pense que c'est des choses qu'il faut saluer et je pense que si aujourd'hui on les met en exécution ça peut porter des résultats je donne un exemple aujourd'hui par exemple euh, l'implication des FDS dans l'approvisionnement, l'acheminement oui, des intrants agricoles. Temps, oui. Pour moi, Lolo, c'est très important. Parce que dans le passé, on a vu que Yon Boumnondiar, ça, ça n'arrivait pas aux bénéficiaires. Donc il y avait les sous-préfets et les chefs de village et autres euh, opérateurs économiques. C'est eux qui étaient chargés d'acheminer. Je ne dis pas que nous n'aurons diagnostic à faire lui, qui sait, mais le résultat, c'est que ça ne parvenait pas aux populations. Donc ce problème-là, Ça fait qu'aujourd'hui, c'est difficile, c'est un défi pour le Sénégal, nous tendre vers l'autosuffisance alimentaire. Et tant qu'on n'en fera pas une priorité, la création des emplois, les femmes aussi impactent déjà par rapport à l'éducation. Parce que l'inadéquation du système éducatif de jeunes par exemple. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont en attente parce que le régime qui est en place, de promettre et de faire Euh, euh, comment dirais-je, en tout cas promettre qu'ils ont la, la, possibilité de créer des emplois dans le pays qui vont leur permettre de pouvoir gagner dignement leur vie et de, de pouvoir subvenir à leurs besoins. Te gëm naa ni il y a une réelle volonté du gouvernement en place et je le dis encore une fois plus il n'y a qu'à voir les décisions, les mesures qui ont été prises récemment pour voir qu'ils sont, ils sont vraiment déterminés à répondre aux attentes de ces populations là donc pour man euh, ñu ngi ci jéego yooyu noonu ça prend du temps ils c'est le ils sont en place ça ne fait qu'un mois donc en un mois franchement on ne peut pas attendre grand chose de ce régime pour moi ce n'est même pas encore l'heure du bilan donc il va falloir que nous soyons un peu patients. mais tout le temps parce que boo parce que am na yeneen mesures. donc de l'opposition dañuy foog ne c'est des alibis la nouvelle opposition. <laughs> mais c'est c'est c'est bonne guerre comme je dis encore une fois plus. il il faut vraiment se mettre dans une posture républicaine accepter ces critiques là voir la ñu mën a jàng ces critiques pour s'améliorer. Mm-hmm. donc man moom je de du à économique également que vous inspire le voyage du président Diomaye ca Côte d'Ivoire parce que Sénégal Côte d'Ivoire ay la ñoom ñooy les deux puissances de de de l'UEMOA l'Union économique euh, monétaire ouest-africaine alors est-ce que boobu léeg voyage stratégiquement euh, mën nañu apporter dara mën na impacter euh, ci ñaari réew yi ak yan dogal lañ fa war mën a jël ngir mu gën a am jeexital ci si ñaari askan yi. je pense que euh, loolu comme je l'ai dit ça ça toujours dans l'axe du programme l'intégration africaine parce que dafa nekk un point qui est très important tey euh, au lieu que ñuy dem di chercher à nouer des relations avec des puissances étrangères essayons de voir d'abord ñun en tant qu'Africains comment nous pouvons créer euh, une synergie qui va qui va nous permettre non seulement de faire du commerce entre nous de développer des projets d'ensemble yu ñu permettre que ñu mën a ñu mën a atteindre un idéal Euh, de développement. donc je pense que euh, voyage boobu c'est dans cette logique que ça s'inscrit boo xoolee tey Sénégal ak Côte d'Ivoire comme tu l'as dit ce sont les géants de de l'Afrique de l'Ouest euh, en termes de croissance ils sont toujours en tête. et relations yi yàgg na ce n'est pas aujourd'hui c'est des relations séculaires qu'il faut euh, perpétuer et voir yan genre alliance nouvelle la ñu mën a créer je pense que c'est la même chose euh, les mêmes raisons qu'il avait poussé avait poussé le président mu dem Mauritanie dem euh, au de la Gambie de la Guinée de la Guinée-Bissau et gëm ni bientôt aussi dina def yeneen pays de la sous-région pour que vraiment ñu magnifier cette euh, euh, cette cette cette cette intégration africaine parce que boo xoolee ñun on commerce entre nous qu'à hauteur de 15 pour cent seulement. donc d'où encore la raison pour laquelle il est important pour que nous puissions pas pas maintenant mais un jour nous départir du franc mm, mm. parce que loolu. Euh, je pense que mon grand qui est là qui est économiste bi nga xam te Mamour dañuy lu bëri on sait que c'est un facteur bloquant euh, de de cette ce, ce commerce là intra-régional bi nga xam ne moo ñu mën a permettre ñun ñu commercer entre nous c'est beaucoup plus facile. Mm. donc euh, pour man loolu il faut il va falloir que ñu ñu ñu ñu ñu mettre un accent et puis travailler vraiment mm. que à ce que nous les pays africains nous puissions mm. créer un grand ensemble. Oui. et commercer développer ensemble donc je pense que c'est logique boobu la. Hamidoun Hamidoun euh, yow moom euh, sa dernière euh, sortie yi dañu lay dégg souvent ngay mettre l'accent surtout ci li nga xam ne urgence la te sénégalais yi foofee lañ leen war a jàppale ci mu gaaw loolu muy dund bu cher bi bañ bañ nañ sax je vais utiliser le mot que vous aimez utiliser tant dañu xiif <laughs> alors ni ñu ko waxee ah Pape Abdoulaye rappelé na ko Roger également est-ce que dina yomb lu jëm ci wàññi wàññiteeg euh, dund bi compte tenu euh, de sunu euh, état économique ci buñu xamee ne yu ci bëri bëri dañu koy jéggaane ceeb bi blé bi l'huile le lait lépp day jóge biti réew alors est-ce que sur le plan économique nii nii nii nii daar loolu mën na nekk. bon tontu nag. c'est ça parce que déglu naa du bëri lu ñu wax maa ngi jégalu nag mais je suis pas d'accord si lu ñu wax. Mmh. Mmh. mbaalu déjà man may wax dañuy souhaiter Diomaye réussir mais on a un petit problème si ñoom lu ñu wax parce que ñoom Diomaye bu ñu ñëwee fekkuñu dara si caisse état c'est normal te su waxee état dafa am période de soudure mois de mars lay nekk. lu tax parce que entreprise yi ñoo ngi fay les impôts sur les sociétés fin avril. donc ñoom koppar yu bëri yu ñu am si recette si impôt ñu koy jëlee si entreprise yi ñoo ngi koy am à partir entre après le 30 avril parce que ngay def sa état financier yi fay sa impôt xaalis boobu nag dina la téye ay quelques mois parce que c' est des milliers de milliards yu ngay jot si société <coughs> donc soo ko doxalee ba fin d' xam ne un mois avant ñuy dugalaat xaalis mois boobu day metti moo taxoon nag mois de mars bu ñuy fekk ñu fi tax c' tout à fait normal mais fin d'année bi l'État va te dire qu'on a récolté tant de milliards des sociétés parce que ñu koy def seen état financier dem fay léegi ils avaient des caisses vides les dépenses de l'État à peu près sont de deux cent cinquante milliards par mois si salaire ak les intérêts sur la dette deux cent cinquante su ma jumulee FMI deux cent soixante milliards la leen jox ñoom ñu demoon États-Unis dem FMI banque mondiale d'urgence parce que loolu lu ko waral tey Sénégal su ne 7300 milliards noonu am budget seeni recettes yi 3600 à peu près la donc 1246 milliards su ma jumulee en 2023 lu noonu récolté si douane 2400 impôts et taxes ça fait 3600 mu am 3700 yoo xam ne da nga koy lebbi chaque année yi da nga koy leb yi da nga koy may. donc xam nga yow moomoo sa bopp. Mm. mais kii di la lebal di la may dafa am fu koy jaarale. léegi nag boo ñoom bu ñu dem noonu États-Unis ñu ne seen dossier baaxul parce que danoo. ñoom le nouveau régime. le nouveau régime. ñoom mm-hmm. États-Unis dem déposé ñu seen.